am naa lu ma téye am naa lu ma téye sama njaboot. maa ngi koy sant bu baax a baax. Euh, di liggéey nag di transformer xëy na tamit yenn évaluation yi dañ koy wéer si am-am li nga am li nga représenté mën naa la wax benn émigré 83 laa ko defar album boobu. ak Seli ba tey maa ngi ciy jot ay royalty déparal fofu nak nga dugg sama patrimoine mhm. artistique lima ma bind mhm. li ma def mhm. chaque semaine bu yalla sak dina am demande d'autorisation pour kenn ko reprendre sama way lolu moy sama base yeneen yi nak kuy génn wane mom xam nga ni Youssou Ndour ci

l'étranger. dañ koy jël koy crédibiliser benn. parce que c'est parce que c'est non non c'est un classement international. d'accord c'est pas parce que. fii la nekk wala feneen la nekk mais <laughs> attention classement bi quand même. dans les médias, les groupes de médias là. classé wuñu <laughs> euh, l'homme de médias qui nekk ci cimenterie ak feneen dans les médias là, plus puissant L'homme mën nañ ko dégg. parce que aussi sonné ligue depuis deux ans. Dans les médias les plus puissants. situation où, dans les médias. Non, non, non, attends, attends ils ont dit les artistes. On parle les les, Les, les, plus riches ou les mieux payés. Oui. Payés, mon balagne la Je pense que c'est les médias. Ils des médias. Ils ont plus parlé des artistes. Euh, les mieux payés. Situation où il Les <laughs> Situation où ah, Donc, on peut faire un clan. Mais au-delà du mhm. classement, 2005 mhm. ah, mhm. et plus, tu as groupe

c'est presque 600 personnes qui sont 600 personnes qui fiy la convention les journalistes et les reporters et tout ni au-dessus on paye les gens Vous ne les dañuy respecter les ñi mais ñëpp xam nañ pas quand même yenn chiffres yi boo koy wax ci presse da ngaa bëgg rek fuural mhm. mais amu fi amu fi le marché de la publicité ñëpp xam nañ ko yooyu Birane dina leen ko mën a wax et cetera mhm. keroog wax naa ko bi may intervenir nee naa léeg-léeg nit jël mille personnes fekk soxlawul mille huit cent la soxla mhm. mais jàpp ci on est au Sénégal dëgg la de on est senegal Sénégal la ñu mm-hmm. nekk mm-hmm. xam nga luy luy sama credo dégg nga ko Youssou Ndour du dàq c'est mm-hmm. waaye dinga liggéey jéene mënu mënuma ko le mot le truc mënuma ko mais ça ne bi ndax kër gi dañ ko teg ci ay loxo loxo yooyu dafa am ay mesure am. mais Miss Albagini, ngi ni euh, caméra yi ay nit ñoko mhm. mais depuis sank ñu ngi def émission bi. voilà euh, ay a pas de caméraman. et pourtant ñoñu doon liggéey daan téye caméra yi. Mhm. affecté nañ leen ci yeneen ni euh, yeneen ni branche ou bànqaas yi nekk. le projet le projet ni la dafa commencer radio, Sport FM ñëw RFM. Mhm. l'observateur après jóge Observateur, ñeu TFM mhm. après IGFM mhm. après nous avons une deuxième chaîne de télévision mhm. qui va parce que nous aussi nous faisons il y a une deuxième chaîne de télé il y a une deuxième chaîne de radio qui s'appelle King FM il y a des magazines donc nous def ba nga ni que thématique la Les thématiques, les grands groupes

nit mën na trois mois nay man bon qu'est-ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens dans cette maison le président man Gorla, ça me gêne mhm. d'être payé et de ne rien faire mhm. man ko tout. tuuti <laughs> digga liggéey bu yëf yi commencé nag nga ñëw naan ma donc c'est c'est c'est c'est ça notre modèle mhm. alors euh, wax nga wàllu liggéey loolu tam actualité la keroog conseil présidentiel moom mi yëkkati na fa kàddu xëyu ndaw ñi tey yaa ngi ciy def ay jéego gis nañ industrie bi dem nga ci mhm. euh, bëggoon naa nga wax ñu ci ban xalaat nga ci am ak lan nga jàpp ne moom moo ko war a résoudre leneen beneen question bi mooy dañu gis tamit yeneen réew yi nga xamante ne dañu aspirer au développement mhm. muy réew yi nga xamante ni xam nga leen mhm. en Afrique et un peu partout dans le monde dañuy construire